mas ngaa gis daayira arabisme. te waxuñu daayira kay njàng. déedéet foofu laay tàmbalee. parce que dama bëgg. leeral waaw lu tax ñuy bañ njàngum tubaab ci jikko ji la làng euh, waxin la aw wax. xoolal is bu tarxiya waaw loolu rek laa lay joxe exemple indil ma beneen beneen làng boo xam ne ñoo cay jàng mel nañ noonu. ah man nag yooyu. waaw waaw de sëñ maam Mor laa wax ne. Ah. soppi nañ njàngiliin.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 dégg nañu arab waaye nag ngi njàngaleem sëñ Tuubaa jëluñu ko rek fab sànni waaw loolu sëñ Maamoor ko def ma dégg nga tudd ko rek mën a sa xarit la waaw waaw sëñ Maamoor moom suñu lépp la <laughs> suñu lépp la koo waaw man nag sama xarit damay gënal nag sama koo xam ne nag def maa noonu wax